waxtaanee ak suñu gan gile euh, lu soxal euh, mutisme bi nga xamante ne dañ ko nemmeeku ci opposition bi ci jamonoy crise euh, sanitaire bi le daañu waxtaanee coowal troisième mandat fii ci Sénégal ak tamit ci sous-région bi nga xamante ni troisième mandat tax na fi ñu toll nii Mali wala Guinée ma ngay daal di tàkk daañu waxtaane situation Covid 19 bi ak file ci Sénégal ñenn ñi sax day wax ni daañu indiwaat li nga xamante moom mooy état d'urgence sanitaire. daañu ko waxtaanee ak suñu gan gile euh, grâce présidentielle ak situation prison yi file ci Sénégal euh, justice pour Bassirou Faye ngeen gis ni ba léegi euh, ñi lee di étudiants yi ñu ngi laaj justice pour étudiant bi lee di Bassirou Faye parce que ni ngi ni démb rek lañ doon fêté anniversaire u décès maanaam jour bi nga xamante ni faat nañ ko ci université Cheikh Anta bu Dakar ci jàppante yu doon am ci diggante étudiants yi ak takku der ñu wax ci coowal bi am ci proposition bu Mary Teuw Niane bi ne nañu annulé euh, màggal ak gàmmu ngir xeex li nga xamante ni rek moom mooy mbas mile parce que jàpp na ni euh, rassemblement ak Covid 19 àndul euh, ponk yi kon daañu ko waxtaanee ak kile di Mamadou Lamine Diop nekk responsable politique APR ñu koy nuyu di ko dalal jàmm. salaamaaleykum maa ngi lay nuyu. Mm-hmm. maa ngi profité aussi ci occasion bi di nuyu bépp auditeuru Rewmi point fr. Euh, point com point com maa ngi mm-hmm. jégalu. Mm-hmm. Ah, point com mm-hmm. di euh, euh, profité encore une fois ci occasion bi di remercier ñëpp di baalu àq ñëpp ci affaire ki feetu tabaski bi bi ñuy jógee. yàlla nañu yàlla dimbali ba lii di mbas mi nga xam ni moom moo sonal réew mi. yàlla dimbali ñu ba mu nekk suñu ginnaaw. képp koo xam ni da nga ci ñàkk sa waajur ñu ngi la koy jaalee képp koo xam ni da nga ci tëdd ñu ngi lay ñaan yàlla yàlla faxas sa bopp nga jóg ba lii nga xam ne mm-hmm. mooy mbas mi di nga xam ne dafa ëlëm réew mi yëpp nekk suñu ginnaaw ba ñu mën a dellu suñuy yitte. Mhm. Euh, voilà tey jii Mamadou Lamine Diop ci euh, ponk bu njëkk bu ma lay laaj moom mooy dañu gis ni euh, opposition actuellement pratiquement amatul fii ci Sénégal yow en tant que responsable politique APR nekk ci camp présidentiel ban jàngat nga am ci loolu ñu bëri dañu sentiratul opposition fii ci Sénégal pour yow lan moo ko waral. non peut-être que ne aussi que ne mhm. nguur gi mooy def li su fekkentee ne mm-hmm. euh, le parti au pouvoir mm-hmm. mu ngi euh, avancé ni mu ko ni ko askan yu bëggee mm-hmm. opposition bi forcément mu faible peut-être que ne euh, loolu la parce que analyse yu bare bare mën nañ ko ci am mais c'est vrai que am na beneen aussi aspect bu ci am foog ñu reconnaître ko situation réew mi toll na foo xam ne ñu ci bare bare aussi parce que politique dafa laaj rassemblement politique dafa laaj tourner te comme loolu lépp dañ koo tere ñu ci baree bare mënuñ lu dul toog di xaar situation bi changé. parce am na ñu naan da ngeen jënd opposition bi dañu jënd Idrissa Seck ainsi de suite. ku si demee ni kii par exemple yow tey Idrissa Seck euh, nga xam bu ñu wax opposition Sénégal actuellement bu jiituwul euh, nekk premier war na nekk deuxième. Euh, mu nekk mutisme boo xamante ni jaaxal na nit ñi depuis la veille de l' élection présidentielle de 2019 ñu naan yéen da ngeen a jënd Idrissa Seck président Sall dafa jënd Idrissa Seck moo waral noppeem gi loolu ñu ciy wax bon xam nga sujet la boo xam ni très sincèrement. Mm. amuma ci amuma ci firnde quoi. amuma mm. ci firnde ma rappale rek ne. pour yow président Sall li ko war mi ngi koy def. mu ngi koy def loolu laa gis moo laa gis parce que. wala lool nga am envie wax. non mais loolu laa gis. loolu mm. laa gis no am nga su yeneen sujet dinaa la wax leneen loo xam ne. Mm-hmm. xëy na bokk ma ko gis-gis ak gars yi te man noonu laa gisee man euh, j'assume mes idées. Mm-hmm. que ne dama jàpp ne mu ngi def li ko li ko war ak askan wi bon xëy na nag. Mhm. ci ci ci ci ci ci yenn domaines yi xaw na am tuuti manquement duñ ne lépp lépp mojji duñ ne lépp tout va bien parce que mhm. loolu aussi yëpp askan wi la mhm. am na ci am na ci exemple man je rappelle que maa ngi tudd Mamadou Lamine Diop maa ngi dëkk Ndiabène Gandiol je suis responsable politique à Ndiabène Gandiol j'ai été le candidat de la le candidat et le de l'APR dans la commune de Ndiabène Gandiol pour les élections passées que suñ ma toogee fii naan lépp moo ji alors que maa ngi dëkk euh, Ndiabène Gandiol am na manque am na yu baree bare ñu doon xaar gisuñu ko aussi. Mm. yàpp askan wi la. Mm. mais jàpp naa ni li ñu mën. ce qui est possible ñu ngi koy def. mais yow noppi opposition bi da nga jàpp ni président Sall li ko war mi ngi koy def. voilà moo tax opposition bi noppi. noppi yow jàngat boobu nga ci am. bo jàngat boobu laa ci am nekkul comme li ñuy wax dañoo jënd idri Idrissa Seck ainsi de suite wala dañu jënd opposition bi. non euh, euh, c'est vrai que ne bokkuñu parti maak ñoom mais ma je les mm. ne dañ leen jënd c'est les manquer de respect. Mm. gëmuma ko très sincèrement. très sincèrement gëmuma ko gëmuma ni. ak réew mi fi mu toll nii nii nii nii nii ak sénégalais jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ba pare ba pare ak réew mi fi mu toll nii nga xam ni tout va mal secteur boo laal moo gën a métti waaw tout va mal bi ku ci nekk ak fa nga toogee nga koy gisee ah opposition bi ne tekk je pense je pense que su fekkoonte ni est-ce que yéen loolu yéen ñi féete sax ci camp présidentiel jaaxalu leen non pourtant man. pour man maanaam réew mi fi mu toll. pour man fi réew mi opposition bi waroon yëngu yëngal. pour man ñoom ñu ne teg peut ay activiste rek benn naa benn ngay gis ñuy génn di dénoncer. waaw mais fan la réew mi toll dañoo ne ci période boo xam ni période mbas mi la. Mhm. période avant mbas mi buñ jël mbas mi rek bëgg koo euh, raaxaale. waaw mais bon. mbas mi les les les problèmes c'était avant. la Covid 19 avant mais noppi bi la ñuy wax c'est-à-dire tekkaaral je pense que ne dañoo ne ci période boo xam ne euh, période bu particulier la. que ni euh, du ñu nekkul période boo xam ne dañuy dañuy jóg di kii parce que dañoo tere rassemblement yi mm-hmm. xëy na loolu moo tax ñu toog noppi mais aussi ma dellu soit li ma la waxoon rek que euh, xëy na ñoom seen bopp dañoo gis ne li li président euh, Macky Sall warloo woon ak askan wi mu koy def que mm. ñoom amul lu ñu wax voilà mais naka gisee seen parti APR mu nekk parti boo xamante ni dafa am problème structuration maanaam dafa nekk parti boo xam ne ku nekk yow yaay sa leaderu bopp ku nekk yaay sa chefu bopp kenn nanguwul ku la jiite. bon man ouais. du ma ko problème boobu. problème la est-ce yéen a si pour xool nu koy régle waaw xam nga man moo tax euh, boo ñëwee dans suñu commune ñun. Mhm. on est toujours dans le parti. Mhm. mais teewul dañoo créer suñu mouvement dans le parti structuré ko li ko waral Modou xam nga lan la. Mhm. tey le parti n'est pas structuré mm-hmm. man bokk naa ci yi nga xam ne ils son convaincus mm -hmm. que le président ne se présentera pas en man bokk naa ci yi nga xam ne gëm nañu ne Macky Sall du nekkaat dinañ si ñëw si troisième mandat voilà parce que moom moo ñu ko waxoon moom moo ñu ko waxoon te man gëm naa ni nit de num toti homme de parole la loolu moo tax ñun ñu créé euh, suñu mouvement fas yéene structuré suñu mouvement fës yéene ànd ak moom dem ak moom euh, dem ak moom euh, nu mu ak moom élection. Hmm. ba tax na ñun ñu ngi ñu ngi parce que. Euh, dem ban ban élection. élection yi di ñëw yëpp. quand hmm. je yi di ñëw élection locale la ñuy wax mais y a de fortes probabilités parce que am na ñu koy ñurumtoo ne dañuy coupler élection locale yi hmm. ak élection législative mais lu mu ci mën a doon dinañu fekk pare parce que tey comme ni nga ko waxee APR kenn structuré ko peut-être que ne secrétaire général bi loolu la wax wax na ay raison mooy ku ne xam na ni. mais comme ça da ngay jël tey exemple parti bu mel ni parti socialiste. c'est mhm. bien structuré. xam nañ ko jiitu xam nañ ko topp bu problème amee xam nañ kii moo war a wax nekkul ke ku nekk rek da ngay génn di am nañ kuy wax. officiellement ñu xam ne partie socialiste moo wax am structuré quoi ñu xam ne nii ak nii kii moo topp kii dem ni ainsi de suite bu ñu jël ay décision ñu respecté ko lu ñu war a wax dañ koy tënk ba d'accord ci ainsi de suite dama jël exemple rek mhm, parti mhm. socialiste comme ça parce que quand même ak même su fekkente ni sax am na ay problème euh, c'est bien structuré mais loolu laa la wax lan moo tax munu am APR no mais c'est parce que waaw euh, est-ce que yéen a ngi siy waxtaan ak le président Sall man de bokk foo xam ne ku nekk yow sa chefu bopp nga. APR xam nga boo xoolee problème yi ñu am nii à l'interne. waaw ñàkk structuration moo ñu ko yóbbee. mais euh, aussi ñun dañu ànd ak président Macky Sall di ko gunge depuis 2009. Mhm. que ne euh, suñu engagement politique yemul ci gunge président euh, Macky Sall. il mhm. faudra que. au-delà de 2024. Mhm. su fi nekkatulee su fi nekkati su nekkat su nekkul candidat du nekkul président ñu am une alternative imaginez tey fi tey tey fi tey nii li parti biy dund. Mhm. que ne xamuñ kan moo topp ci gannaaw kan. kenn mhm. suñ poussé nii ba deux mille vingt quatre. Mhm. le président Macky Sall ne nekkatuma candidat qu'est-ce va faire. non parti bi dafay dee moo tax ma posé la question bi voilà moo tax APR dootul exister voilà parce que ah, comme ça sans le président pour éviter pour éviter loolu nag moo tax ñun on a créé un mouvement interne boo xoolee am nañu bëree bëri y a gros bonnets yu nekk bi APR yoo xam ne ils sont avec nous dans dans ce mouvement mais ils disent que c'est pas le moment ñoom ñu fësal seen seen kàddu mais ñun à l'interne ñu ngi xool ñi nga xam ne ñun mën nañu ànd pour que après ñu ñu ñu ñu fësal suñu suñu. yéen si loolu nga nekk daal. Mhm. voilà comme parce que loolu moo tax. quoi qu'il advienne troisième mandat bu ñuy laam-laamee naan Macky Sall euh, doxalinam ak affaire yooyu moom lay togg comme li am actuellement si suñu dëkkandoo yi. Côte d'Ivoire si mhm. sous région Mali Guinée ainsi de suite. coowal li nga xamante ni mooy troisième mandat jàpp nañ ne loolu di raam fii la jëm si te président Sall tamit loolu lay togg maanaam xool nu mu euh, sampaatee ndëndam. waaw man. man yow loo ci xalaat. man li ma ci xalaat mooy gëm naa ne. Mm. gëm naa ne président Macky Sall du nekkaat candidat 2024. mais loolu ñi ko wax ñëpp dàq nañ leen affaire de. non mais man. nee naa la sax xam nga posé nga ma question. Moustapha Diakhaté wax na ko ñu dàq ko. waaw mais euh, mm. euh, mais teewul mu ngi ko ne dunda. Mm-hmm. xam nga sànq posé nga ma question. Mm-hmm. ne ma est-ce que nekkul noonu nga bëgg a xalaatee ma ne la sur d'autres questions man j'ai donné mon point de vue peut-être ne du nuroo point de vue yu gars man li ma gëm mooy. Mm-hmm. ñun dañoo nekk ak président Macky Sall 2009. 2009 la ñëw à Gandiol mm. tàndoon laa mais ñu ànd ak moom di liggéey. 2012 mm-hmm. la fa ñëwaat que ne mm-hmm. ñun ñoo àndoon ak moom référendum bii nga xam ne moo fi indi limitation des mandats à mm-hmm. dañ ko ko votel wàcc ak moom ci terrain bi présenté ko askon wi que gëm naa ne bim ñu koy wax gëmoon na ko. ba tey nii jusqu'à preuve du contraire gëm naa ne le président Macky Sall ne se présentera pas en 2024 maintenant li tax. Mhm. mais tout dit le contraire. tout dit comme quoi. parce que sénégalais non mais waxagul ne ne. Moreau waxagul ne suñ xoolee Macky Sall ni muy euh, toggee ak ni muy yoree réew mi ak ni muy doxalee ak une sorte de dictature bi mu yoree réew mi kenn du wax kenn du kii képp ku yaakaar ni sax kii mën na taxaw face tere ko. wala xeex li nga xamante ne mooy troisième mandat ñoo ñëpp mu ngi leen di néewal doole en tout cas doxalin bi gis nañ même même déjà bu mu supprimer poste premier ministre ça pose problème ñu ngi naan ñu naan président lan lay togg exactement loolu loolu bëggatul maanaam sax képp ku am maanaam ku am pouvoir sax jege ko mu mu mu mu mu xool nan la lay affaiblir xam nga noonu la ko nit ñi gisee. waaw képp koo xam xam na ni kii am na ay ambition présidentielle boo moytul euh, président salle dina la fexeel ainsi de suite ñu gis ñi ñu fi taxaw tamit di euh, jot a yuuxu naan troisième mandat du fi am ainsi de suite gis nañ tamit ñoo ñëpp ñu ngi leen di bundu xataal. Mhm. donc euh, ak doxalin bi ñëpp yaakaar nañu deux mille vingt quatre président Sall dana sampaan dëndam. waaw mais loolu xamuñ nag dana ko am wala du ko am. loolu jàpp nañu dana gis-gisu mën naa ne opposition bi la. te tamit la posé nañ ko question bi encore une fois. nanguwu si tontu lu leer. voilà mais non nangu tontu na ci. ni mu ci tontoo la nit ñi du loon doonu. xaar non tontu wu ci leer. danga nga naan waaw wala déet. dafa ne hmm. dafa ne. Hmm. du ma waaw du ma ne déet parce que. parce que il a argumenté aussi. Hmm. foog ñu reconnaître loolu daan ne. li ma gëm mooy su ma nee waaw pëcc xoo lay ne. ku ne di ut positionnement su ma nee su ma nee waaw. coow lay ne opposition bi ñu liggéey campagne la nekkee su ma nee déedéet pëccoxoo lay nekk ku ne ut position pour kii te loolu faut reconnaître c'est vrai man dama ne. mais moom nee woon nee woon na déet. bind na ko fépp. archive yaa ngi fi ñu ngi ko koy génne chaque jour. du jeex mais comme que wax na ko mu leer mu ne nul ne peut faire euh, plus de deux mandats consécutifs ainsi de suite wax ko mu leer naññ. mais yow kon kon tontu nga. parce que xam tax yow nee nga wax nga ko mu leer naññ. waaw léegi moom lan moo tax bi ñu ko posé waatee question bi ak polémique yi si am mu daal di tontuwaat loolu ne man duma ma présenté wu jeexal naa 2024 euh, la sama mandat di jeex. man mi man mi man mi di wax ak yow. waaw lan moo tax mu créer déjà. Euh, kii waaw. dama lay wax benn affaire man xam nga l' expression est singulière la compréhension mhm. nga ko foofa nga déggee ne wax na lu leer nañ ne euh, le nombre de pare naa ci su ma présenté woo 2024 foofu laa ko teg. Mhm. tey su ma parti bi woo ne ma lan moo tax nga dem réew mi. Euh, FM naan yéen tere woon nañ leen sax. may ma yeggal waaw mhm. nga dem foofu di wax dama naan mais président moo ko wax man waxuma loolu li mu waxaat. moom moo ne carrément du présenté waat 2024 donc man loolu laa jàpp benn bi ñuy wàcc ñun ci référendum bi. di di di di di di dagaan baanu askan wi pour que ñu voté référendum bi c'était pour limiter le nombre de mandats mhm. man loolu laa gëm ci logique boobu lañ ne ba tey gëm logique boobu moo tax ñun aussi à l'interne ñuy créer suñu mouvement à l'interne de de de, de l'APR pour que ñu 2024 si on se retrouve confronté à à une absence de candidat ñu am ku ñu proposé dynamique boo lañ nekkee man dama bokk ci ñi nga xam ne quoi qu'il advienne gëm nañu ne le président Macky Sall ne se présentera pas en 2024 jusqu'à preuve du contraire. parce que moom moo ko kan moo fi nekk pour pour mën a teewal APR. non mais xam nga mais n'importe yi am na ay cadre xamante ni kenn nanguwul kenn jiitu. non mais xam nga pëccëxoo Macky rek moo mën a wax ngeen topp si gannaaw. su dul moom c'est fini. koo wax mu ne man resuma Macky laa res. waaw mais c'est parce que ñàkk structuration bi. mais kan moo fi mën a nekk imaginez-vous imaginez-vous le président mu retiré wu taxaw fee mais yéen kan kan ngeen di tànn. voilà je vais répondre à cette question. waaw. il yoo xam ne mën nañoo ne candidat ay ay mooy nangoo topp si ginnaawam. kan mooy non non mu ngi mel ne nga laajoon suñu structuré woon. Hmm. suñu si un un parti bien discipliné suñu structuré. Hmm. ku ci nekk même su fekkente ni candidat bi gënalu la da nga ci topp. mais c'est ça le problème mais parti bi amul structuration. mais loolu laa la wax ne la amul structuration moom moo waral coow li. mais tey suñu structuré woon exemple comme ñun ñu toog man la ñun on est à l'interne. ñu ngi liggéey ci structuré suñu mouvement. suñ ko structuré woon. mais même candidat bi nga xam ne tànn nañ ko man gënaluma da ngay hmm. parce que loolu mais est ce que yéen a si si boobu defaraat seen parti bi balaa hmm. deux mille vingt quatre. non non si ñu ngi ci ñu ngi koy déggoo ma li ma la wax. Hmm. ma ne la pour wane ne pare nañu pour trouver une alternative à tout sax que ni quoi qu'il advienne. ñun suñu mouvement. pour les élections locales ak législatives yi di ñëw on aura un candidat yéen ban mouvement ngeen am ak seen mouvement nu mu tudd. voilà la voilà voilà voilà. bàyyi loolu bàyyi ma ak seen mouvement ban base la am ba tax moom mu mën a mu mën a moom ngeen mën si sukkandiku pour structurer xam nga nee naa la nee naa mm-hmm. nee naa la léegi am na ay gros bonheur yu ne dans l'APR mm-hmm. ils sont en avec nous mais seen position tax na mën a ñoo feeñ mm-hmm. hmm? moo tax jusqu'à présent ñu nanguwuñu wax communiqué carrément ci non mouvement bi génn ci yenn position parce que certains fi ñu nekk foog nga nangul leen ko aussi que ne kenn ku ci nekk ñëw ci ci ci ci sagos boppam mu ñëw adhéré ci mouvement bi ñu ànd structuré parti bi que ne li ñu mën a wax tey kon turu mouvement bi mënagoo leen ko wax non non non li ñu mën a wax tey xam nga lan la mm-hmm. am nañu ay repré euh, euh, euh, représentant au niveau international au mm-hmm. niveau national que ne ak lu mën a xew dinañu incha allahu rabbi dinañu am candidat au niveau national au niveau départemental c'est-à-dire que on sera on fera de sorte que sur les quarante cinq départements propose une alternative 2024 ñu ñu wane loo xam ne c'est assez structuré que ne gannaaw parti bi kenn structuré de ko hmm. yéen mais yéen lan la fi APR def ba euh, ñu war a joxaat APR si boppam nguur gi 2024 non mais euh, même non. si seen candidat sax du président Sall waaw waaw mais attends lan la fi APR def li fi APR def du jeex hmm. du jeex je pense yéen yéen yéen lan ngeen fi war a def ba tax Sénégal yi amaat si yéen confiance di leen jox troisième mandat mais moo lan lañu defoon ba tax sénégalais am ci ñun confiance jox ñu jox ñu deuxième. mandat non parce que réew mi fi mu tolloon la sénégalais dañoo jàqoon il fallait changer Wade. gis nañu non no non waxuma boobu de. waaw deuxième mandat bi laa wax. ah deuxième mandat. waaw 58 pour cent yi. peut-être dañ naan nañ ko kii mu yeggale chantier yi et peut-être foofu la sénégalais toll boo ko tegee ci ay peut-être peut-être moom. Euh, non parce que xaw ma lu tax sénégalais tax man dama jàpp ma ne peut-être dañu ne ah euh, comme que may nañ ko nañ ko bàyyi mu yeggale ay chantier comme habitude ni ñu koy waxee voilà moo tax ma ne la benn mandat gannaaw dañ koy teg peut-être nañ ko naa jàpp ne hmm. man ma jàpp ne c'est parce que dañoo gis ne lii mooy li gën ngir askan wi moo tax ñu joxaat ko mandat ngeen jàpp ne yéen dinañ leen jox troisième chance si jamono bi nga xamante ni sénégalais lott nañ dee nañu xam troisième sens boo waxee troisième sens c'est par rapport au troisième mandat wala. troisième mandat. non man nee la man. waaw man ne troisième mandat soit muy le président Sall wala yéen seen parti am ku représenter l'alliance pour la république. li ma gëm mooy li ma gëm mooy man. waaw on a de fortes chances. que su ñu amee un candidat consensuel. Mm-hmm. bu présenté en or le président Macky Sall am nañ chance su askan wi joxaat ñu confiance pour man li ñuy gën a xañ sax. Mm-hmm. mooy que. li nga xam ne moo xew Côte d'Ivoire li nga xam ne moo xew feneen ak feneen ñu bëgg ko indi Sénégal. Mm. c'est-à-dire man d'accord. yow yow déjà ban jàng nga am ci li am Côte d'Ivoire. non xam nga. parce que instant bi la situation est tendue. Euh, nguur sax jaru ko. Mm-hmm. nguur moo jarul yi am Côte d'Ivoire nguur moo jarul li am dans la sous-région ci problème troisième mandat yi man bokk naa ci ñi gëm ne président Macky Sall doful président Macky Sall ku fonk baatam la te moom ci boom moo ne woon ci bii la yem président Macky Sall dina fexe. sortir par la grande porte. parce que nag est-ce que moom dina dina tirer leçon ci li am en Côte d'Ivoire. absolument absolument xam nga lan la. Mhm. que ne la am na am na am d'analyse. Mhm. ba pare man au-delà de su dara xewloon Côte d'Ivoire su dara xewloon dans la sous-région au-delà de tout ça man dama gëm ne ku fonk kàddoom la te xanaa moom kàddoom googu mu ñu joxoon ba ñu wàcceel ko ci askan wi ne mhm. di dagaan pour que population yi voté référendum bi voté deux mandats yi. xanaa du dellusiwaat nañu man dama leen doon nax parce après tout ça suñu nawle la. Mhm. que ne mënuñu gëmloo benn affaire ñu défendre loolu ñu wàcc ci suuf après mu ñëw di ñu wax leen moo tax man bokkuma ci ñi gëm ne président Macky Sall dina def troisième. yow daa jàpp nga yooyu moom ay kii la. waaw man dama jàpp ne wax opposition bi la. mais président Sall da 2024 mu joxe lenge yi. loolu laa gëm loolu nga gëm. loolu laa gëm ci ci loolu la ñuy liggéey. voilà euh, ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi seen émission sociale toute la ville en parle tey ji Ndeye Comba Moreau dalal Mamadou Lamine euh, Diop nekk responsable politique APR ñu wax ci situation Covid 19 bi euh, file ci Sénégal ñu gis ne Covid 19 bi mi ngi gën a law di gën a bari ñi ciy faatu presque pratiquement ñu ngi ci deux cent cinquante personnes yoo xamante ni officiellement ñàkk nañ seen bakkan ci Covid 19 bi fii ci Sénégal sénégalais jàpp ni yéen da ngeen président Macky dafa lajj ci li nga xamante ni mooy gestion Covid 19 bi loo ciy wax. non du ma nanguwuma ne sax sénégalais jàpp nañ ko dama naan opposition bi ñooy wax loolu pour lay. xam nga xam nga sénégalais yi la non non non defe naa ma firnde laa lay jox firnde bi mooy. Mhm. bi feebar bi door a ñëw. organisme ni ONU. Mhm. dañ ne woon ñun fi la ñuy jaaree raf. Mhm. que pays africains fi la ñuy jeex tàkk anamu. est-ce que mën mën mën nga ñàkk a président Macky Sall ci gestion boobu tey su fekkonte ne dañoo li li li li li pays grande puissance doon wax. Mm-hmm. parce que ñoom dañoo nattoon seen bopp. Mm-hmm. ñoom dañoo jàppoon ne li xew foofa noonu ñoo ñu deewee noonu ñun suñu accès fii amuñu yenn structure sanitaire yi fii la ñuy jaaree euh, raaf ba jeex demeewul noonu c'est vrai que nag ni am na ci loo xam ni xëy na suñ ko doon defar. dinañ ko changer. Mhm. mais faut reconnaître Moreau que ne feebar bi feebar bu bees la. amoo ci benn expérience donc boo koy boo koy boo koy def dangay jàpp ci sa ci sa technicien yi nga waxtaan ak ñoom ñu defal la ay proposition ñu def après li ci jubul ñu jubanti li ci baax ñu continuer moom que ne tey man je salue parce que Moreau bu ñu fàtte ne. Mhm. aussi cent cinquante morts nga wax. Mhm. kañ la. mbas mi duggoon ci réew mi. deux cent cinquante. nañu xool annuellement ñaata la sibiru bi di rey plus de 4 mois 5 mois. Mhm. waaw ñaata la sibiru bi di rey ñaata la sibiru bi di rey paludisme bi ñaata la rey que ne man j'ai pas les a exacts mais maanaam ci waxtaan benn médecin nee ëpp na carrément vitesse bi moo ëpp carrément vitesse bu mhm. mbas mi. Mhm. que yeneen feebar kay ñu ngi. yeneen feebar plus que Covid 19 dama ko cité moom. xam nga hypertension beeg. problème mu diabète yeeg yëpp sax tudduma ko. mais dama jël exemple rek paludisme boo xam ne période bi lañ nekk que donc pour man tey li nga xam ne moom la OMS nga xam ne organisation internationale la doon prédire pour le Sénégal. Mm. àgguñu ca yàlla suturaal nañu munoo ko imputer keneen dëgg la. Mm. dëgg la am na ci loo xam ne moom yàlla la. que ne yàlla la dans la mesure où il s'est avéré que ne dafa bare ci ñun ay cas asymptomatiques ñoo xam ni feer mënu leen tëral mais. aussi man jàpp naa ne gestion bu baax a baax am na ci Covid bi maintenant. li waaw maintenant li nga xam ne li nga xam ne micro trottoir. Ah, xam nga lan la ak tâtonnement bii nii nii. non tâtonnement amu ci xam nga la problème bi lan moo. def mesure de indi état d'urgence sanitaire xam nga def ay assouplissement teggi mbir yi ci moment bi nga xamante ni mbas mi ci la ñu gën a sonal nga tegg bépp mesure parce que euh, bon d'un part d'une part parce que koom-koom bi mi ngi commencé voilà ñu jëm ci wàllum récession économique. mais mais commencé nañu Sénégalais lottu loof. ñu teggi ko eh, wax nga ko. Sénégalais lottu loof parce que dugg nañu commencé nañu ba pare xaalis bi ngeen jëloon ngeen ne da ngeen koy dimbalee sénégalais yi nga xam sax dañoo lootoon loof avant mbas mi di ñëw. Mhm. ba léegi ba sax ñu lever état d'urgence sanitaire bi couvre-feu bi yëpp euh, ndimbal boobu pratiquement kenn jotu ci. non non non kenn jotu ci. non moo robul wax loolu. ñan ñoo ci jot wax ma ñan ñoo jot. ñi ko xam nga xam nga lan mooy problème réew mi. waaw li de aw ma. mais yow waroo am. yow hmm. doo nécessité yow yow yow doo doo doo war a mooy ñi nga xam ne ay néew di doole lañ Modo entre nous yow doo néew di doole lii ngay wax nii mooy problème am ñoom ñu ngi doon liggéey liggéeyatuñ ndax mbas mi waaw non ñoo xam ne néew di moo ko waral non mais Modo xam ngay wax nga tontu nga sa bopp xam nga tontu nga sa bopp euh, bu ñu fàtte ne ndimbal li pour néew di doole yi la woon hmm. mais néew di doole yi jotuñ waaw non jot nañ am nañu jot ñan ñoo jot non am nañu jot man laaj wu ma woon yow laaj woo woon keneen laaj wul woon yow soxla woo man soxla wu ma mais xam lan mooy problème réew mi mm. dëj man pour man personnellement et le jure sur le Saint Coran bi affaire yi amee man dama jàpp ne damaa bokk ci ñi mm. ñi war a dimbalaate ñi boo ñëwee sama direction di nga xam ne man bokk naa ci njëkk a émir le fekk ñu def benn cotisation ñu déposer hmm. ko. ku nekk déposer ko ñu déposer ko. Hmm. Euh, ci force Covid bi. Hmm. bon bi mu antuwul man sama bopp ci li ma yàlla wërsëgale si néew. Ah, jënd naa ci jënd naa ci euh, euh, jënd naa ci li ma mën a dimbalee ñi nga xam ni jàpp naa ni néew di doole te ban dama jàpp ne ñun ñëpp noonu lañ ko doon defee cest à bi su dimbalee képp koo xam ni am nga am nga juróom am nga juróom fukk nga jël fukk yi. dimbalee ko askan mais man xam naa ñoo xam ne xam naa koo xam ne ci en toute discrétion mën naa la ko présenter am na revenu mensuel un million pourtant demoon na déposer kayitam di laaj. Mhm. te man foog naa ni ndimbal li suñ koy wax néew di doole yee tax. Mhm. suñ demee ba ñi nga xam ne ñoom am ñu am na ñu revenu mensuel un million dem di déposé c'est parce que xamuñu objectif bi ti foofu laay dellu see ne la. Mhm. am na ci loo xam ne suñ ko doon rectifier. war nañ ko rectifier waat mooy communication bi. xëy na feebar bi feebar bu bees la musuñu ko xam musuñu jokkoonteeg façon ngi problème yi mais ràpp naa ne suñ doon demaat ci affaire yu demee nii dinañ ko rectifier waat li ñuy rectifier mooy lan li nga am lan sama point de vue la par rapport à la mm-hmm. question xam nga tey boo xoolee système de communication bi dañ ko techniciens yi mm-hmm. techniciens yi mooy médecins yi quoi dañuy génnee données yi jox ko ministre bi wala jox ko kenn ci ñoom mu taxaw ci télé bi liir ko liir ko mm. pour man waroon joxe euh, résultat bac voilà mm-hmm. pour man waroon nañu ko boo waroon nañ ci boole sociologue yi psychologue yi ñu diluer information bi ba mu tolloog askan wi parce que loolu moom problème la boo xam ne ëllëg ak si biir nañ ko seet quoi. Mhm. parce que man pour man. ci sama xalaat mais mais gars yi suivre tuñ leen de le point du jour comme ça. moo mooy li ma lay wax ne xel bu baax mais. maintenant parce que booba dañoo tiit non booba dañoo tiit mais xam nga benn fan. léegi xamatuñ si Sénégalais sax xamatuñ ñaata nit ñoo ñoo si ñàkk seen. xam nga li ma benn paa doon wax bi ñuy wax ci euh, euh, gestion Covid bi mu ne euh, dafa bëgg dañ yàlla da ko nattu. Hmm. ñu tëj ko ci village am pour ne pas le village mu bëgg a ñëw. Dakar kon ne liggéeyam marchand la day jaay man ko non feebar baa ngi Dakar mun ma xam nga lan la génn di di dar dar yi ba dee moo ma gënal di ba dee parce que dafa toll benn instant boo xam ne munoo yeewu sa kër sa njaboot di xiif mieux vaut nga dem lu yàlla def nga xam ne lool la lool nag moo tax benn instant l'État était obligé mu ubbi parce que askan wi tëju bi ñun mel ñu ne France mhm. nga xam ne am nay doole ku ci ne fa ngay làqatu mu dimbali les les les en fait dañu am benn benn benn somme boo xam dañ koy allouer ñi nga xam ni c'est des diplômés chômeurs. Mm-hmm. fii amu fi fii boo xoolee ñiy liggéey dans l'informel ñoo ëpp fuuf ñiy liggéey ci état bi. côté boobu laay waxee dama la bëgg wax ne. Mm. yow néew di doole yooyu ngay wax. xam nga ñooñu ça toujours existé avant mbas mi di ñëw. buñ jàpp ni peut-être mbas mi moo indi ñooñu. Mm. nga gis comme ça pratiquement benn kër goo xamante ni. euh, c'est une famille de de vingt personnes benn nit moo fay liggéey mhm. wala ñaar maximum mhm. mooy yóbbaale waa kër gi yëpp mhm. mooy fay location mooy fay ndox mooy fay courant mooy dundal mooy dund mooy res njàng gone ainsi de suite kooku mbas mi ñëw président jël na ay mesures par exemple tëj na hôtel yi yenn restaurant ainsi de suite koo xam ne restaurant am la yoroon euh, di ci liggéey yor si waa këram yor si une vingt vingtaine de personnes ainsi de mhm. suite wala mun doon liggéey mhm. ci benn hôtel salaire am boobu ci lay euh, jàppale mhm. euh, si la yor tout une famille léegi mesure bi mu ñëwee xam kooku bu chômage technique bi amee pratiquement day toog këram bu fekk am na si ñoo xam ne sax amatuñ salaire am na si ñoo xam ne xaaju salaire la ñu am mais kooku bu fekkente ni yéen ngeen du ngeen ko dimbale kooku dee na dëgg nga wax xam nga moo tax. man la parce kooku benn nit moo doon liggéey. di yóbbaale parce que on est au Sénégal di mm-hmm. yóbbaale tout tune famille. Mm-hmm. kooku président jël ay mesures. hôtelam tëj hôtel ba mu doon liggéeyee ñu ko fay fay sale hôtel bi tëj hôtel bi ne ko yow instant bi da ngay dem chômage technique mënatuma la gérer mm-hmm. euh, peut-être dinaa la jox une petite somme déjà kooku am na problème wala am na si ñoo xam ne nag seen liggéey sax carrément dafa taxaw 4 mois cinq mois 6 mois amoo benn revenu si réew moo xamante ne da nga doon vivre au jour le jour da dem ñafe li nga am nga ñëw dund si ainsi de suite dajale fay sa location mais ñooñu amuñ ndimbal te ñooñu dañu jàpp ni du ñu ay néew di doole te ñooñu sax pratiquement ñoom la mbas mi gënal laal parce que amoon nañ si lu ñu jàpp di yóbbaale une vingtaine de personnes mbas mi ñëw mesures yi sax laay wax ñëw yàq seen liggéey carrément ñooñu nga jàpp ni ñooñu waruñ am ndimbal. non non waxuma nga xamante ni ñoom. naturellement am ñoom naturellement. amuñ liggéey amuñ dara. non non non non non non vous me comprenez pas waxuma ne ñooñu waruñ am ndimbal. d'abord d'abord su ma doon définir néew doole ne da ngay xëy di dund du du moo tax ma la néew doole ñoo fi ëpp. que ne kooku laay définir comme néew di doole bi. Mhm. nekkul ne ki doon toog non non non képp koo xam ne yow da nga xëy di live ñafe sa live di jour le jour. Mhm. man dama lay boole ci néew di doole. Mhm. mais képp koo xam ne yow mbas mi entravé wul sa sa sa sa sa say say revenu. c'est-à-dire que ne mu mbas mu ñàkk mbas gouvernement ngi lay fay am na ñoo xam ne. mu mbas mu ñàkk a mbas seen salaire musul tardé même ñu nekkul ci gouvernement bi mhm. ñu ngi fa secteur privé ñu ngi secteur par waa ñu ngi ko pour man ñooñu bokkuñ ci bokkuñu ci te waruñu ci bokk mhm. mais ñooñu ñoo dem di laaj xam nga problème bi lan la pour man état bi kese warul dimbali dem mhm. muroo képp koo xam ne yow yàlla nattu dimbali na la ba mbas mi yàqul sa liggéey waroon nga am xelu sa dëkkandoo bi nga dëkkal nga wàññi tuuti ci li nga yor dimbalee ko man noonu laa ko gisee. pourtant gars yi ñu ngi ko doon def. non non mais xam nga non mais man loolu am na. Mm-hmm. man nee naa la. Mm-hmm. yàlla rek tax may wax que mais mais man nee naa la xam mm-hmm. naa ne. xam naa ñoo xam ni seeni revenu moo ëpp sama yos. demoon nañ déposer ji xam naa ci ñaar kenn ki moom. mbas mi yàqul liggéeyam parce que mu ngi doon jot fi mu ngi doon liggéey fi mu doon liggéey mais keneen ki déggoo man la am na revenu plus de un million te dem na taxaw di kaas alors que loolu mooy problème bi te euh, am na benn point bu boo wax bu important mhm. mooy ñi nga xam ne parce que man loolu bëggoon naa ministre de l'intérieur revenir ci mhm. tey tëj nañ plage exactement mais est que xam nañ ñan ñaata nit ñooy dund ci plage yi ñooy dund ci plage yi exactement bi boo demee. Mm-hmm. am na koo xam ni waas jën lakk la yoree këram. Mm-hmm. parce que plage bi au delà de booy dem di football foofu. Mm-hmm. c' est une économie man. exactement suis ingénieur des pêches. xam ci plage laa ne. laay ne doomi mool la. du tëj nañu rassemblement mais dafa am impact. dafay am impact loolu est que ministre bi mu ngi koy xam. que ne au delà de. tey wàccee nañ fa gendarmerie tey kenn dootul sangu kenn dootul def dara. Mm. même nappkat bi nappkat bi la je suis ingénieur des pêches mm. nappkat bi nga xam ni fiile fiile la yor di sànni. Mm. nappkat bi nga xam ni caas la yor dañ ko koy tere. moom ci boom dañ koy tere liggéey de tere tere tere tere booy ñu football ci plage bi dañu ne léegi personne ci plage yi. ki liggéey ci woon ci place bi dootul liggéey si ki napp si woon ci place bi dootul napp si kenn dootul nekk ci place am na koo xam ne waas jën la fi nekkee ci lay dundal njabootam am na ñoo xam ne màdd lañ fay jaay li nga koy xeebas néew ci la ñuy am 5000 francs bu ñu yóbbu seen kër par jour am na koo xam ne café la fay jaay am na koo xam ne ay jouet la jaay c'est-à-dire que bi bi bi lalu ci ci ci place yi été bi été bi ni muy doxee Europe lay doxee fii de. sa à dire il faudrait que le ministre de l'intérieur comprendre ne le mm-hmm. ministre gis nga ni gars yi jógee fii dem été ji Europe noonu la euh, baadoolo bi jógee village ñëw été si Dakar te boo tëjee plage yi tëj lépp fu ñu jëm neew ma nañ ko tijji booy ne di football mais tëj ràpp moom ba bay euh, nappkat bi mënatul napp ki doon jaay dara doxatul aussi. ça pose problème ça pose problème man moo laa ne man la am na ci loo xam ne suñ ko doon defaat man su ma ko doon def du ma ko def ni ñu ko defee. Mm. parce que des fois je me pose la question est-ce que associé nañ ci technicien à la base yi ci nekk mm, yëpp pour mm. dox leen les bonnes informations voilà ñu wax ci temps bi sax bareetul mm. an ñeneen ñu wax nañu àndiwaat euh, état d'urgence sanitaire bi yow d'accord nga si waaw wala déet non non non ñu non non xam nga tax d'accord ma ci mm-hmm. tey am na ñu firnde ne li ñu doon tiit yàlla suturaal nañu ci yàlla suturaal nañu ci ba ñu ci baree baree bare wax dëgg yàlla li ñu doon tiit naan dinañu dinañu di euh, dinañu ko dee que ne li OMS doon fe man moom tiitoon naa tiit goo xam personnellement foogoon naa ne heure bi kenn waxatu ko mm. tëjaat kii bi mooy yóbbuwaat askan wi ci ndóol extrême mm. que ne quoi qu'il advienne instant yi spécialiste loolu lañ wax de dañ suñu continuer nii daañu moom laa ma ne man je suis pas un spécialiste mais mm. man personnellement ah liñ ñu jox ci information pour man parce que dégg naa keroog benn benn docteur ñu invité ko benn télé seen TV si mu ne mm-hmm. il s'est que par rapport ak test yi ñu bi ñu defee évaluation bi tests yi ñu jot a def on se retrouve de cas asymptomatiques ça veut dire que pour cent. pour cent de personnes. feebar bi leen tëral pour cent de personnes feebar bi mënul ñoom dara mais est que pour cent de sénégalais. war na tax ñu tëjaat réew mi ñu dee xiif c' la question que je pose je pense que non. Mm. man. Euh, euh, kii statistique boobu rek laa ci am. bu mm. fekkente ne c' est avéré que quatre pour cent de la population sont des cas asymptomatiques quinze pour cent de population ne sont pas une majorité te waruñu tax ñu tëj réew mi te médecin dafa leneen mu ne ci quinze pour cent de population yi y six pour cent yoo xam ne ñoom la feebar bi mm. mën a tëral carrément ñenn ñi mën nañu soj ñenn ñi mën nañ quatre-vingt-sept pour cent plus de quatre-vingt-sept pour cent yi dinañ ko am duñ ko yëg ñenn ñi daañ xam ne am na lu leen di metti mais tërul leen six pour cent yi ñooy tëdd yow jàpp nga ne loolu jarul ñuy demaat. non jarul ñuy demaat parce que beneen jàngoro la encore. muy jàngoro yi jàng xiif ak mar. ak ndóol te booboo yées. waaw système sanitaire défectueux maanaam euh, dañu wax ni mbas mi dafa wanewaat encore c'est vrai que problème bi yàgg na fi mais dafa wane wanewaat encore que suñu hôpitaux yi dañu feebar. Euh, suñu médecins yi ñoom si boppam dañu feebar parce que amuñ jumtukaay euh, mettre leen mettre leen dans de bonnes conditions ñoom si seen bopp dañoo feebar ba pare bëgg a faj askan wi mbas mi encore dafa euh, wanewaat loolu yow lan ban xalaat ban jàng nga ci am parce que da ngay gis mm-hmm. médecins yi ñu ngi kaas fan yi temps yee waa dalal jàmm les médecins génnoon nañ laaj seen xaalis ainsi de suite non man xam nga on a vu aussi souvent les déclarations de Moussa Seydi waaw mais mais mais euh, professeur Seydi ma koy ma koy ma koy big up ci euh, mm. par l'occasion parce que dëgg yàlla mm. man rafetlu naa liggéey bi peut-être que ne ñeneen gisewuñ ko noonu mais man pour mm. man dimbali nañ ci lu bare bare pour ci jël ay responsabilités ci lu bare mais euh, pour dellu si ci ci ci problème mu feebar hôpital yi ngay wax mm-hmm. que ne c'est vrai que ni mm-hmm. suñu hôpit suñu hôpitaux yi menuñu ne hôpitaux européens yi parce que ku koy wax ñoom nga koy comparer mm. ñenn ñi xam nga fu ku xam fu neex danga nga a tukki en fait ils ont pu faire une comparaison mm. pour xam ne suñu yor si par rapport ak mm. mais boo newoon ne da ngaa jóge fii nga dem nga dem dans la sous-région ci yenn dëkk yi nga dem seen hôpitaux yi nga xam ne Dantec principal suñu hôpital yi ne fii hôpital yu mag la mais nag boo ñu comparé euh, euh, hôpitalu euh, pays grande puissance di nga xam ne aussi suñu hôpital yi mooy loolu que am na loo xam ne dëgg la que ni mm-hmm. la c'est l'Afrique. Mm-hmm. tey ku feebar. Mm-hmm. mbas mi xam nga ban avantage la ma ne. que ni ku doful ku ne nga jiite réew Afrique war nga góorgóorlu ba sa plateau médical nga relever ko parce que amatul feebar di dem bitim réew. te yàlla ma yàlla baal te jégal ma maa ngi dégg benn benn euh, comédien naan euh, jot na borom barke yi. investir seen xaalis bi ci ci ci ci ci ci ci suñ plateau médico parce que mm. amatul feebar dem ci biti ku feebar boo amul foo fajoo fii di nga dee mais révélé na mm-hmm. peut-être que dysfonctionnement yu bare parce que pour man mbas mi yàlla na ma yàlla baal te wane na ni ñoom war nañ fi defar dafa tolloo dafa tolloole mm-hmm. néew du doole beeg borom doole bi mm-hmm. que amatul feebar buub say bagaas dem bi réew ku feebar fii nga yem mais nag c'est vrai que ne boo jëlee comme ni ma ko waxee suñu opito yi xaw na des mais par rapport ak boo ko comparé li nga xam ne moo xew dans la sous-région tey. no dafa des kay. na. déggoo ma la boo ko comparé. yow xam nga ni. fii moom macha allah am nañ ay borom xam-xam. non mais ba pare ba pare man waxuma la la ma lay wax nii mën nga ko macha allah am xam mais le problème le problème des techniciens. waaw mais li ma plateau médical. loolu dëgg la. mais parce que ñoom moom seen seen xam nga ni sous région ñu baree bari fii la ñuy faju see. loolu ma ne hmm. xam-xam. kenn naa table woo ko. voilà allah. waaye ñoom la ñuy ñaxtu am nañ xam-xam mais médecine dafa am fu muy toll faw nga am un bon plateau médical pour mën a def sa liggéey looloo tax président yeeg DG yeeg ministre yi di daw ak borom barke di faju ji bitim réew. mais fi mu toll nii faju ji bitim réew mënatu la. exactement que ne ku feebar. Mm-hmm. fii ngay fajoo baa nga léegi lan ngay proposer par rapport à ça ñu tàggatoo. non li may proposer mooy que ne. Mm-hmm. ñu ñu ñu ñu ñu jàngat ñu jël ay jàngat. ci ci mm-hmm. ci feebar bi. ba ba góorgóorlu ba wax dëgg yàlla. relever suñu plateau euh, médical yi. Mhm. que ne ba nga xam ne dëgg la par rapport à la ak sous-région bi parce que ñu bare bare fii la ñu fajuse que ne euh, am ñu niveau mais par rapport ak euh, paj mu baax des na bu baax a baax ñu au delà de plateau médical bi ñu ñu ñu ñu recruter parce que Moro dakaar nga ne. Mhm. boo demee ci àll bi. ça pose de santé yu baree baree baree bare kenn nekku fa. Mhm. parce que faut faut oser le dire aussi. que ne ngay dem ci benn zone boo xam ne vingt cinq mille habitants moo fi ne foofu mel ne Gànjool benn infirmier wala benn benn benn sage moo fi ne. waaw wala wala wala war dëkk bi yëpp. Hmm. que ñu def ay ambulance aussi ci yenn poste de santé parce que man fa man dëkk muy njabeen Gànjool euh, ambulance bi des fois mu dox des fois du dox que ne des fois da am sa malade. vous êtes obligé nga yow yaay euh, fexe lu ko lu ko lu ko évacuer hmm. donc euh, ti loolu nañ ko seet si ñun sax ñun suñu feebaree wala suñuy soxna nekk nekk ci yenn euh, mm-hmm. situation yi Dakar la ñuy ñëw mm-hmm. parce que situation boobu rek nekk ci àll bi Dakar lañ préféré ñëw mm-hmm. ñi nekk Dakar Europe lañ préféré dem parce que affaire bi c'est graduel voilà ñu bàyyi la nga tàggatoo Mamadou Lamine Diop waxtu bi dab nañu jërëjëf jërëjëf Moreau maa ngi lay gërëm di la sant di euh, gërëm aussi ñëpp ñu doon déglu euh, xëy na li ñu fi waxtaanee tey yëpp am na ci loo xam ne peut-être que ne Euh, xaw na naqari du fekkente ne am na ñu ngi ciy jéggalu parce que dañu mhm. waxtaanee sujet boo xam ne c'est un peu sensible mooy sujet Covid bi mhm. euh, di ci jéggalu wér a wér di dellu si waat rek di la wax ne mhm. et je le répète man loolu laa gëm bokk naa ci ñi gëm ne le président Macky Sall ne se ah, baax na dañ ko archiver rek. toog fii incha bu ñu fi fekkee. <laughs> dina leer ñu koy remercier bu baax a baax Mamadou Lamine Diop. nekk responsable politique APR nekk tamit ingénieur de pêche ñu koy remercier bu baax a baax ci disponibilité am di leen remercier yéen suñu auditeurs ak suñu internautes di remercier Mamadou Diaw Diallo ci euh, machine bi kon tamit émission mën ngeen ko dégluwaat ci suñu euh, page euh, suñu site. internet euh, réwmi point com wala ci suñu euh, chaîne YouTube euh, réwmi officiel comme ba samedi prochain incha ci di ngeen mën a encore dégluwaat émission bi jaa ngeen jëf.